naa ci jigéen ñi nee naa leen bëggatuma ñuy lim bu ñuy limati dëkk yu salte yi bëggatuma ñu ci lim Dakar dama bëgg Dakar nekk dëkk bi dàq ci Afrique dëkk bi gën a set te ñun ay jigéen lañ xam nga jigéen mooy yaay mooy soxna mooy yar mooy yar ay doom kon nag ñun loolu nañ ko def benn défi boo xam ne dañ ko war a lële pour que Ndakaaru nekk dëkk bi gën a set ci àddina bi.